halaan bikum njiit réew Macky Sall fa dalal député benn bokk yaakaar yi ca pale ba ba pare fa leen a wax ne faa bëgg nag bu leen pare ne kenn ku dul candidat bi ma nar a tànn mbërëm benn bokk yaakaar yi même biir APR su xamee ñoo xam ne fa ñoo mer nag candidat leen bu leen leen pare ne waxuma laak nag candidat bi bu leen pare ne kenn faa bëgg mu leer te faa bëgg ngeen signé ko député yi na ko signé nañ ko vox populi moo ñu ko xamal te mooy yéen kaay ne yemul fa de waxaat ne yéen député benn bokk yaakaar yi faa bëgg gi ma bëgg a te ñu déggoo ko waxtaan wa ca dialogue national ba bu ñëwee assemblée loi ba faa bëgg yen ñëpp ngeen wote ko leer na ñu ne ko wii chef d'accord nañ l'observateur ne man daal faa foog na Macky xelam mi tas assemblée nationale fa cee nekk fa ko bëgg a tas de bés bi yéene kaay na ko li nar a tas kay boo moytu mooy APR ah diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ci ñàkkante xeex da lañ nar a nekk ger lépp ngir bëgg a remplacer njiitëram Macky Sall ku nekk say farandoor mi ngi ci réseaux sociaux yi turbine yéene kaay na ko faay dëggal li nga wax de ah, fa ngay xool Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba ñoom ñaar ñëpp fa ñoo pare ngir remplacer Macky te ragal APR googu fukki candidat génn nga fa l'évidence yéen a kaay na ko faalaay wax am na kenn ku génn dèjà nee na candidat la mooy Moustapha Diop bu Louga nee na fay samp ndëndëm 2024 léegi ko yéen a kaay na ko faala ci yokkal am na xibaar yu génn ne Amadou Ba moom itamit nee na candidat ci ab Twitter la ko bind waaye njiiti jëwri ne Ba fa gaaw weddi ko ne loolu du dëgg fa xam ñoo xam ne fa ñoo defar ab compte fictif maanaam compte boo xam ne Twitter man moomuma ko ñu def sa sama photo xam benn bokk yaakaar pastef ak pds li ñuy wax plan b faaragal na mënta ñàkk ci ñoom de ba tax ñu wër seeni plan b te moo kaay na leen man faa leen di xamal leen gis ngeen njiitëram Macky Sall ak Ousmane Sonko cooki fin xeex bu mujj faaragal na mënta ñàkk seen diggante de wala fa ji yéene kaay na ko yow xanaa fa ngaa yëgul li xew pastef seen kàngam yëpp fañ leen a xañ seen liberté fi toll nii maanaam ci gàttal pastef fi am Diallo moo ko jàllale ca kasoog rëbës ga donte ay naataango mu député yu yeewi askan ña ngay sàkk ñu bàyyi ko la leer l'observateur ba mu xëy amal ci ab jàngat mooy wàllu communication bu parti bi di Pastef yaaw seetal ngir moytu li daloon Karim Wade dal seen waa ji Ousmane Sonko moo tax fañ ko bëgg a investir mu nekk seen candidat le 15 juillet bi yéen kaay bi ne lii nag provocation la ci njiit réew Macky Sall la <laughs> laneen lu leer ba yegg ca nañ ni ja mooy ne parti socialiste PS fa jox carte blanche Aminata Mbengue Ndiaye na ko loo def noonu la te jaaree wuñ ko ca bureau politique ba ba tax source a na texte UPS ya gars fañ koo viole de leer la nen lu leer ba yegg ca ñi ja mooy na Barça mbaa Barça xaddel si waat na Sénégal allah si du quotidien moo ñu xamal ne ndaw ñi nga xam na fa ñuy dugg ci gaal yi ngir dem bitim réew uti liggéey fi mu toll ni fa takkarnaase waat ci réew mi maanaam fa gën a bari libération na ko Kafountine foofa la ñuy déparé te ñaareel ay musiba naaru raay rek moo xam sénégalais yi fa ñu mujj faatu ci géej gi ña a gën a bëri nag ay sénégalais guinéen Sierra Leone ba ci gambien foofu la ñuy dépare enquête yéen kaay na ñoom ñooñu nag fa ñuy dem Espagne waaye lab ci géej gi muy ab musiba naaru laay fu mu toll yëf yi fa tàmbaliwaat le regard yéen a kaay na ñetti téeméeru xale ndawu sénégal yi nga xam ne fa ñoo wax ne fa ñoo réer ci géej gi fan yii tax na Ousmane Sonko bind na ci ab bataaxal wax ci ah, yow fa ngay xool fa wax ne ñaareel saa su nekk ñu dégg gaal ya dem nañ suux nañ xale ya faatu njiit réew Macky Sall ak nguuram fañoo lajji ndaw ñu amuñu xëy liggéey réew mi métti moo tax ñuy daw uti faneen ca enquête yéene kaay Ousmane Sonko fa wax ndaw ñu na leen mënu a am gëneen dund gu gën gi ngeen war a am fii seen réew ba tax ca yor yor yéene kaay fa la wax kàddu yu te mooy faa bëgg yéen ndaw Sénégal ngeen toog fii bu leen daw seen destin toog leen ñu ànd xeex ba li fi nekk jógee fi bugaan gay dañu feelu ko ci regard yéene kaay ne noppi faa bëgg ngeen xam ne li ngeen di wax noonu yëpp ci ay ñetti téeméeru sénégalais yu réer ci géej géej lu ma la mënta wax dara du ci dëgg li ngeen di wax dara ngeen ci xamul lii yéene na andi na ca ay leeral moom jëwriñ ji leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne wàllu ger corruption fa bari ci réewum Sénégal ba tax Serigne Bassirou Gueye nee na ger gi ñi nga xam ne ñoo gën a ñàkk ñoom lay gën a lor man ko waxee ca lii yéene kaay la mu wax moom Samira njiital Amnesty International ci turbine yéene kaay moo ne réewum Sénégal fa xamut ay jumtuwaay yu efficace xeex wàllu ger gi lii mooy problème bi le quotidien yéene moom it dikkaat na ci tolluwaayu ger ci réewum Sénégal ba ci Afrique tolluwaayu aéroport Blaise Diagne AIBD Le Soleil yéene kaay moom ci la xëy addu la mu àdd moom lay si ko yéene kaay mooy liy am ca biir àttekat ya ak dogal ya nga xam ne conseil supérieur de la magistrature fa koo jël ah, yow fa ngay xool ay promotion ak ñoo xam ne fañ leen di sanctionné ci ay àttekat fa bari ba jéggi dayo léeg-léeg nga dégg àttekat bu ñu ne affecté nañ ko ci xàll ba xëcc nañ kii yóbbu nañ kële léppañ ca biir yéene kaay ba biir l'observateur moom wàllu ak ñi nga xam ne fa ñuy jaay diggante cinquante mille ba deux cent mille ay fraude ci lépp ca biir ba ba tey l'observateur moom fa ñoo mbir mu garaaw yaw benn dawalkatu jakarta fañ koo fekk ñu daal di ko rendi ba mu faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca diiwaanu Thiès waa ma ne xam ngeen ne loolu ñaaw na de ndaw luy dawlal jakarta bañ a taxawaalu bañ a bëgg dundal ay waajuram ak njabootam tax muy liggéey jakarta kooku kenn waru lool si ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim